bu loolu jàllee mënut a ñàkk am na loo xam ne ñu laaj la ko tuuti Balla Gaye de ci biir làmb. waaw Balla Gaye ci làmb Balla Gaye la rek waaw loolu moom Balla Gaye la. mais temps yi temps yi coow li bari na trop. fan. ci làmb ji rawatina VIP yi am Balla am Modou am Tafa am Ama. waaw mais seen làmb ak loolu ñoo dëkk làmb moom mooy coow ñoo ànd donc lay ñaan yàlla li amateur yi bëgg rek. mu sotti jàmm loolu rek la. Balla lu ko teree am combat moom moo pareegul pour bëre wala gars yi ñoo ko seet la wala qu'est-ce qu'il y a. non Balla xam nga mënul baal boppam combat koy soxla rek bëgg ko tëgg ko donc voilà loolu la mais Balla pare na pour bëre. Balla am suwaa ci ñu muy bëreel ak ñu muy bëree wala quest loolu mbër bu koy def sa xel tranquille sax ak sa ay no non loolu teg ñu ko ah bon man bokk ñun suñuy saf dundewuñ noonu ci làmb làmb amul mbër bu mu choisir amateur mooy xool li xamante ne mooy neexal làmb ak li àdduna bëgg ñu taxawal ko mais du mbër mooy choisir ku ñu war a bëri <laughs> man de du ma ko choisir. Tapha Tine dama ko seeti barki démb Réfane am na lu mu wax nee na gars ñu ngi démarrer sa combat ak moom mais affaire yi si yow la tagee. affaire bi affaire la tagee. ma moom. non man moom man dama yàggal dara. non man moom kenn mësuma ko wax. promoteur proposé wala Tapha Tine. non non vraiment mais am na ñu ñu ma doon proposé mais man duñu wax ak man Aziz lay wax ak mais làmb man. tey tey tey bu promoteur ñoon boo wax ak léegi léegi et puis sax mosul tage su ñun ah ñun amuñu problème boobu waaw waaw. mais Balla instant yii nii bëreeg combat jànk ak bëreeg revanche fi mu toll nii ban la ci gën a bëgg. combat yëpp combat jànk la muy revanche ak comme sa bëre yëpp combat jànk la waaw. temps ñu ngi coow sa diggante ak Boy Niang Balla Gaye Boy ñu ne léegi ko laaj mi koy démarché ak ak euh, beneen suma juumale loolu am na woon. amul amul amul mais Balla fi mu toll nii pare na pour bëre ak Boy Niang. man làmb laa fi nekkal pare naa pour bëre ak ñëpp ku mel ku ma choisir. mbër laa ni ñëpp lii suma métier la bu ma respecté mais euh, man du ma mbër naan kii laay bëreel kii laay du ma moom non non waaw ah, loolu moom du mbër moo ko war a sax génne ci gémmiñam di ko wax waaw ah, te man pour man euh, waaw ni ma ko xalaatee noonu la mbër noonu lañ koy defee tamit. temps yi coow li bëri na Modou Lo Ama Baldé Balla lu ma ci mën a wax ci combat boobu. waaw ah, combat la kon ni ñuy cooy Balla Gaye am Boy Niang moom la ñuy am Ama Baldé Modou Lô ndax kay yi dañoo gis ne loolu lu neex la rek moo tax ñu koy sooy loolu gis la. Ama jël Modou Lô du rësi. non làmb amul rësi. mu dafa doy waar dafa naqaree bëri loolu làmb moom làmb la rek waaw. <laughs> kon looy wax si Kewel Info la ñu ngi leen di seetaan bu baax nag. Euh, di leen ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leen gis nañ liggéey bu baax yu rafet yi nga xamante moom ngeen ko euh, di kontaan di nuyu suma mag grand xam naa ne sonal nga ko trop nag non yaa ko sonal yaa <laughs> ngeen ko di ko en passant bu baax a baax waaw kontaan. merci grand jërëjëf